ak Mamadou ngeen jëf ngoon na lu fitna ci réew mi moom la yéenekaay yu bari di ragal ñu dund ko ci àjjumay tey ji li tax l'observateur nee nañu moo di intercoalition bii di wàllu ak Yewwi ñoo fas yéene amal ab manifestation tey jii ci ngoon ca place de la nation te manifestation bi préfet bu Ndakaaru nee leen mënuta nekk ndax article L61 bi da koy tere jamono ji boole ceekit mën naa turbale ordre public bi waaye gaa ñi ci opposition manifester par la force l'observateur nañu ñu bari ci réew mi ñoo ngi tiit ngoonuk tey gi mel ni bëccëg gi fi woon ci weru mars 2021 bés bi la jour bi mars gi fi woon mooy yoot réew ndax bukki ñu fi matoon ci weeru mars 2021 duñu mataat mu di yu mag mooy li bi tey ji opposition bi leen ca ndigal source waa nañu tey mooy bésub cuukki bi waaye yeewi askan wi dogu nañu ci seen manifestation bi ba ne lu mu laaj rek danañ ko ca def état bi ne leen du fi amee ba tax ñu wàcce ay takk der yu dul jeex ca place de la nation di fa gaañe bëgg a amalee seen manifestation yi source waa nañu police yaa nga place obélisque fees fa dell la démb ba tey yéenekaay bi dolli ñu ci ne muy bi di pouvoir bi fu ñamante ba ku nekk xam sa morom ndax ñoom ñaari wàll yépp ku ci nekk li nga jàpp moo di yaa mën sa morom ci fitna Ousmane Sonko ak i gaayam événement yi fi woon weeru mars 2021 la ñu jël teg ko ci seen kanam di ko xuppee ko tiitalaate ñi ci pouvoir bi te événement yooyee bi ñu amee ba léegi toll ci at ak ñaari weer Macky Sall mënut a fexe ba wanaasu ko li mu gis boobee ba léegi moo di nan la mën a fayoo ci kaw gaañ yi les économies seule la lutte libère nañ ñëpp daje ca place de la nation lii mooy kàddu yuy dégg boobee ba léegi ñu koy paasante ci réseau sociaux sociaux yi am na sax ñu teg seeni pexe ngir mën a ak takk der yi ak seeni lacrymogène Barthélemy Diaz meerum Dakar bokkit ñu woote manifestation gi tey ji ci place de la nation Les Échos ne nañu dégg nañu ko démb mu ne gaayam yi nañu investir mbeddi dëkk bi gàddu suñu drapeau réew def ko muy suñu ngànnaay la Sénégal nañu bari ci dëkk bi ñoo xam ne jamono ji ku ci toogoon cib nen du toj ndax ragal dëkk bi jaxasoo moo waral yéenekaay bi di las moom la ñu bëgg a def tey jii ci ngoon ci Ziguinchor te ca foofeet préfet bu Ziguinchor autorisé wu leen ko le témoigné bind ne ndakaaru ak Ziguinchor ci ay xal la toog Vox Populi nañu moom tiit na ci àjjumay tey jii ci li mën a xew ci ndakaaru ak ci Ziguinchor Barthélémy Dias ci ndakaaru ak Guy Marius Sagna ci Ziguinchor Vox nee nañu li ñuy dégg ñu di ko wax moo di fas ñu yéene dellu gannaaw ci seen manifestation yi ñu woote journal bii di direct news moom fa mu gën a ragal musiba mbaa ba kumba di ci Ziguinchor li tax moo di indi fa fitna daanaka mooy wutal ñu ca Gambie Guinée Bissau waxi nopp mënatuñoo làqatu ca na mënatuñoo làqatu ca Ziguinchor te Ousmane Kabiline Diatta mi ñu teg loxo ci Ndakaaru ci ndigalal procureur bi dafa gën yokk ci taal bi mat anki dina kay nañu li jaadu jamono ji moo di ñi séq yëf yu toog seet waxtaan nan la ñuy def ba génnee réew mi ci guutay politique gi mu nekk li dugal Sénégal ci guutay politique l'info jàpp na ne muy ñi ci pouvoir bi di ñi ci opposition bi kenn ci ñoom génnu ci ci noonee journal li mu gis di ndax élection législative yi waral coow ko dàq ba jëmmi jamono ngir dënd yi mën a dal ñu dali ci libération ñoo xooli fa xibaar bu bi mu xëyee aade benn xale bu góor la bu toll ci juróomi at yéenekaay bi nee nañu dañu koo fekk ñu faat ko ci benn bâtiment bu yeggul ci sébi xotaan anam wa ñu ko faate nag yéenekaay bi nee nañu na la ko yàlla nëbbu ni ñuy lewatalee am xar noone la ñu ko faate tëral ko ne ko deqet rendi ngànnaay ko faate ab paakawaañ xam ne fekk nañu ko ci biir bâtiment bi tantey xale bi libération nee nañu arrêté nañu ko li tax nag enquête bi jaawale ci moom moo di moom tante ji jubawul woon ak yaayi xale bi boole ci kit bi mbir yi xewee dañu ko gis mu dugg këram di fóot ay yérem yi ak yeneen bokk na ci li ko ci yëf yi mi nga ñuy xamalit ne enquête ba mën nga léegi ci loxoy sandarma yu section recherche bu Colobane